Sonko delloowaat ay terrain am teg na ko lu raw la ko Macky Sall tegoon ñu déglu si lëf ti dellu si waat kan mooy Ousmane Sonko bari na lu ma xam ci moom am na loo xam ne diplomatie may na ma du ma ko wax waaye ànd nañ sama oto ñu def loo mu def loo nit loo xam ni bu ma ko waxoon day dem cour d'assises jamono yooyu sama oto man ak moom moom xam na loolu du ma ko wax waaye moom xam na man xam na Ousmane Sonko moomu man fekk naa ko këram li Barthélémy Dias doon wax man xam naa Barthé xam na Ousmane Sonko xam na kon bu fekkente ne réew mi àgg na fii man damaa defoon buy wootee pour ket daf ko war a woote yóbbu ko Fuuta man loolu laa jàpp ak fi réew mi toll ak jafe-jafe Sénégalais yi bu ngeen gisee courant bi yokk gi mu yokk sax bokk na si modification yi ñu wax dañ ko modifier pour code yi bëgg a yokk courant moo ko warloon parce que man bi ñu ko modifier la 15 ba ma dugalee la ma doon am ci ay kilowatts amatuma ko manqué naa 5 kilowatts kon courant bi yokk na ndox mi yokk na nawet bi baaxul ndaw ñi amuñu liggéey li ñu bëgg nag ñoom bu ñu maturité jakartamaan yi nekk fii yëpp kuy dawal jakartamaan wala nga dawal moto da nga am permi loolu ci seen projet la bokk kon ndaw ñu war nañoo xam loolu. bu ñu amee maturité ñi nga xamante ni sama classe nga ay jaaykoot oto la nekk ci VDN bi ñoom ñëpp dañ leen fa jële bëgguñu nit ku yàlla wërsëgal Ousmane Sonko bi mu nekkee ci kaso ba ni mu génne ci sama xaalis man génn naa 23 millions francs CFA. financé ko si moom ci ay sëriñ ak yeneen yoo xamante yu baree bare nga Ousmane Sonko génn si kaso bi awokaam yi am na si benn dossier boo xamante nii ci ñu jàppoon nekk njaareem def nañ si loo xam bu ma ko waxoon tey ji avocat bi dañ ko rajo si baro bi mais problème bi am man ak Ousmane Sonko bokk na ci lii mu def ma te xamante ni moo gën a yées li ma Macky def kon damaa jàpp ni Ousmane Sonko moo gën a bon Macky Sall boo ñàkkee Cheikh du Badol ñàkk sëñ Moustapha si ñàkk ñi nga doon àndal ñëpp jël ña nga xam ñoo doon xëy nga taf sa wet war ngaa xoolaat sa bopp bi mu faloo ba tey amu si kenn ku ma si yëg téléphone am wala téléphone kon man li ma defal Ousmane Sonko falaa man yem ak moom mënatuma ko passé amutum looy moom léegi moo tax mooy wax sëriñ bi ni ko jëloon na benn décision si maa ngi koy ñaan mu jëlaat lépp loo xam ne que ñii nga am lu ko naqari si dëkk ba buñ tànnee ñeneen député yoo xam seetaan pendant juróomi at Macky Sall teg danañu nag bi mu ñëwee dafa maa teg lu gën a piir li ma Macky Sall tegoon le 20 août 2020 dama amoon li nga xamante ni mooy autorisation exploration de carrière ci Thiès. heure contrat bi mu nekk un million et quelque Ousmane Sonko nangu na ko si man ngir wut liggéey pour dimbali askan wi dimbali waa Touba moo taxoon Ousmane Sonko nangu na ko si man ngir que parce que jàpp na ni ànduma ak ñoom 100 yoo xamante ni jël naa ko si banque pour war tabax terrain bi Ousmane Sonko nangu terrain boobu juróomi terrain yi nekk Mbour ak benn terrain bi nekk hangar bi muy juróom benn terrain Ousmane Sonko nangu na ñu ñëw Géejawaay Géejawaay googu dama faa jëndoon juróomi terrain ci filawoo yi waa impôt domaine ñoo ma jaay Ousmane Sonko nangu na terrain kon Macky Sall bi ma nangul ñetti terrain Ousmane Sonko nangul na ma fukki terrain ak ñaar muy wolooru ñetti terrain mu ngi noonu Ousmane Sonko na delloo terrain jàmbur yi delloo ko um, fa mu ko jëlee woon ndax sëriñ bi Mbàkke wax na ay wax yu bëree bëri am na yu bari yoo xam ne daal nee na du ko wax mukk waaye ay wax la yoo xam daal wax na ko te nee na ñii am na loo xam ne bu ko waxee mën naa tax ñu génne eh, ay avocat ci ci ci ci baar yi eh, ci ci baron bi ñeen ñi neen su ko waxee Ousmane Sonko tamit wax na ay wax yu bari daal. Hmm. noo déggee sëriñ bi. waaw am na solo son yi bu. Hmm. Hmm, Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly. ñu ngi koy siyaare baax di ko ñaanal jàmm. di wax ni kàddoom yi am na solo. waaye boo ko déggee dafa mel ni Ousmane Sonko la amal problème. moom waaw. kon nag di ko ñaan rek mbir mi ne ko yemale si Ousmane Sonko yeneen yi mu bàyyi noonu. yeneen comme. comme yeneen yi mu wax avocat yeeg nangam nangam yooyu yëpp rek mu bàyyi noonu ndax xaj na ñooñu amut ak ñoom problème ak yim seqoon ak ñoom ak yim si def yooyu yëpp mu bàyyi ne rek tey bu gën bu am ak Sonko am problème moom mu xeex ak Sonko rek waaw si si problème yi nag ndax dégg naa si yu xaw a baree bari bu dee si problème mu suuf si. Mhm. Euh, la tax mu am mbuurkaat hmm. su ma jumul président Macky Sall moo jëloon benn suufam fayee ko mbuurkaat moo jëloon moo jëloon mbiram fayee ko mbuurkaat moo jëloon lan suufam fu mu xam ma fayee ko mbuurkaat ah, moom loolu la wax waaw ok mbuurkaat la tax mu am fa dañ koo fay wax na fi fi euh, président jëlee woon suufam waaw président ni président moo ko fayee dañ koo fayee mbuurkaat waaw non fi mu jëloon la président wax na ko wax na ko non dañ koo fayee dañ la tax mu am mbuurkaat dañ ko koo fayee dañ koo fayee Ousmane nangu ko d'accord bu dee mbuurkaat nag moom si lañ wax dañ ne dañ ko arrêté ba xool mbir ma kon foofa ñàkk gu fa te bu fekkee ni lam fa amee woon moom tegu woon na si gouvernement bi kon na ko leer ni suufa ma nga fa te dana si jot tey bu jotuti danañ ko delloo xaalisam. Mhm. bu fekkee gouvernement la amaloon problème ndax gouvernement it bu fekkee ni continué la bu fekkee dañoo jëloon mbiram fayee ko fee kon far force day jotaat ci suufam. kon mhm. foofu Ousmane Sonko nangoogu ko. bu dee impôt ñoo ko jaay Ousmane Sonko nangoogu ko na hmm. xelam dal foofaat dañ ko arrêté nde dañ ne nañ ko arrêté dafa amoon bañ saytu ko hmm. fi laa woy bañ saytu ko ba xam jaadu na wala jaaduwul hmm. bu fekkee ni ko jaay far force day jotaat terrain wala mu jot xaalisam kon soo ko jël foofu na xelam dal maanaam dara weesagul waaw na xelam dal foofu bu dee fii nga xamante ni mooy angaar beet fi gaynde yi am foofa bu fekkee dafaa jënd dañ ko arrêté ndeegun pour xool ba xam tegu na si yoon wala teguwut si yoon kon Sonko munta nangu foofu na xelam dal bu dee fa mu jëndoon import na ko delloo xaalisam wala ñu bàyyi ko mu tabax. kon na xelam dal. Euh, en tout cas daal ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy bàyyiloo xel daal boppam mm-hmm. rek bu baax a baax. Mm-hmm. te xam ne dafay yor ginnaaw tey politicien la si genn wet mais si génn wet kilifa diine la am ay taalibe mm-hmm. am ñu ko bëgg am ñu ko yaakaar am ñu koy topp. kon mu bàyyi si xel bu baax a baax si communication. mais lan la war a mën a jàppee lan la mën a mën a joteeg Ousmane Sonko. yow ci sa xalaat parce que man gis ci veillu élection yëpp. da daan xeexal Sonko dem na ba ni mbokkam la dem na ba ni moo ko yaroon. dem na ba wax yu bëree bëri. léegi lan mooy problème bi parce que man boobu ba léegi dégguma fu usmaan Sonko attaqué sëriñ bi dolli wala mu sax wax gaaral ko. Ah, lan mooy problème bi. Ousmane kay li mu def moo raw attaqué. mooy lan. mooy nit ki wax ak yow nga bañ koo faale. ah loolu rek mooy jote. waaw moo di problème bi. ah kon nit bi wax yow da nga ko war waaw. Ah. bu nit dawee wut si da war daw wuti ko. waaye nit mënut a daw wut si la nga daw di ko wan ginnaaw. amee ah, sëriñ bi sëriñ la warut a daw wuti Ousmane Ousmane la war a daw wuti li leen boole la réew mi. Hmm? réew mi la ah, da nga wax ne sànq kilifa diine la léegi loolu la dama si bu dee côté kilifa diine gi sëñ bi day toog fee jàpp boppam Sonko moo ñëw waaw loolu la ko pour bëgg si lim yor mais lii day politique si réew mi moo tax sëriñ bi mooy dem sa moom ndax moom moo jiite réew mi mais est dem na sëriñ bi demul de nu muy demee sëriñ bi kay li ko war lépp def na ko bi mu nekkee taxawu na ko wuti na ko dem na si moom def na lu ne Sonko taxaw fi mu taxaw rek dafa war a ah, Sonko daa waroon a déplacé dafa war a déplacé a déplacé wu wax wuti ko moom it ñu dox tasi jàppant hmm. doxal Sénégal jëm kanam ñu ñëpp ñu bénéfice aussi maanaam doxal ma dox waa day dox day dox wut si sëñ bi sëñ bi dox wuti ko ñu daje jàppante ah. nga xamante ni kenn néewut sëñ bee daw dem si moom wala ko daw dem si moom mais dañoo dox tase daf hmm. ne li leen boole mooy réew mi bu élection yi jàllee nañu toog ñu waxtaan ñoom ñaar waaw boo jàllee bu élection yi jàllee nañu toog waxtaan nu ñuy toogee noonu nañ toog waxtaan ah mu ne kii moo gën a pur. Hmm? Macky waaw loolu lépp li ko waral mooy Macky Sall léeg-léeg Macky Sall li muy pire pire sax léeg-léeg bu affaire yi naraan kii day day lay woon la kaay luy problème bi ngeen waxtaan ko. mu seere la ngeen waxtaane ko rek. mu seere la non non ngeen waxtaane problème bi <laughs> mais Sonko ñoom moom it il faut que mu ñëw ñu waxtaane problème bi. jërëjëf. Hmm? am na solo 18000 euh, personnes yi attention 18000 personnes yi ku abonné wul nga profité rek abonné ci chaîne bi la ngir di mën a am lépp fi bàyyi sëriñ bi Mbàkke tey waxam ji lañ dajal ci internet bi. Mhm. indi ko daal mu nekk ay jàngat yoo xam ne jombal am nga ci xalaat. waaw sëñ Abdou Bara dool de euh, boo ko dégloo mu wax euh, man li ma gis.